ilaahi jàmm rahmaani jàmm rahimi jàmm yàlla jàmm yàgg sekk njaay atumaan ma njaay ngooni tënga géej abu dem ma bàyyi maar ma ñu jom jabax dem ko fandeen maa ngi jooy ongo ñaag mu umi njaay mu ñu lippee mu umi la kere atumaan ma njaay ngooni tënga géej abu dem ma bàyyi maar ma ñu jabax dem ko fandeen ziar kontane jox cër mbok senegal ziar kontaanee jox cër mbok aduna tay nak konangi ni mbokum rew mi ci sen sen C'est le bon TV ko am ñaari junni yo may mayal ku neex mais ku bëgg a dégg jappal C'est le bon TV ñu ñew fi ci ties ñu invité won ñu ci ties waye duñu duggé ties ba genn te gisunu rabu ties rabu Thiès a ngi ni alaaji mondu mbay borom ma fekke adina mbay borom ma fekke te olof ndjay neena na fekke bakkan lay laaj bakkan lay laaj si seen émission mbër ak société. gaaroo gaar geeroo geer bàyyu ama nee na ragal du dem geer ñu ne ko lu tax bàyyi ama mu ne Fallaye Balde nee na ku bëgg a te ñeme woo keeg da ngay toog mu ne booy koy wax sa kanam la waaw Kona maa ngi sant yàlla di julli jërënt bi di nuyu waa Sénégal waaw dama ne Kona maa ngi sant yàlla di julli jërënt bi di nuyu waa Sénégal di nuyu ñëpp di nuyu sama xarit yi di nuyu sama am di jàmm yi xam nga di la nuyu yow mi nga xamante ni da nga jóge ba Dakar ñëw kees waaye Cees nag boo ñëwee ba dem dëgg gisoo rabu Cees. non mu ngi mel ne nga dugg seeraas ba génn te lekkoo ndawal. te lekkoo ndawal. Père Mansour Diop tàmbalaay saa bi nee na ma ni gàcc ñàkk gàllaaj weesuwul nga dugg seeraas ba génn te lekkoo ndawal. waaw te nee na man nag lu mu rëy rëy rëy rëy man ma ne waaw mun ma boo demee seeraas fekk fa malaaka mu taxaw non dama lay wax. <laughs> mbaa nga ni mu sóoroo lan la. non dani ma. seeraas ma ne ko naa mënu ma nag lu mu rëy rëy rëy boo ñëwee seeraas fekk sa malaaka. fekk fa malaaka maanaam day tëdd. maal maa la wax mënu ma seeraas lu fa dugg daanu. kon Mbaye euh, Modou Mbaye dinañ waxtaanee làmb. Mm. waaye dinañ waxtaanee tolluwaayu réew mi. ndax li tax ñu tuddee la monu Mbaye du caaxaan. non du jaaxal. ndax mënoo tëdd Eumeu Sène Junior. waaw dëkk ci Pikine ngay doomu géwél dëkk Thiès. dëkk yaroo Pikine. waaye nag ni nga mel ci Senegal, dem bu ñu tuddee la monde mbaay. kon tur woowu defe naa am na def ci Sénégal lu ñu tuddee la monde. waaw turu monde bi fu mu jógee monde. waaw turu monde bi sama nijaay mu dëkk Pikine ñu koy wax Alaaji Monde Mbaay daan ànd ak Papa Diop mbër xam nga daan ànd ak euh, daan naa ne Pikine yëpp ndeysaan ay ay di ànd ak ñoom Dulce Capo ànd ak Père Pape Diagne ànd ak Baye Malick Ndiaye waaw bay Malick Ndiaye mom nak mo andon ak sama ndjay and pap Pape Diop dem sanj sama nani, ci gor gui am amoon data soirée eh, mbaaya eh? <laughs> tey tey nga dig dig atina atina dama bëgg deglu waaw ndax borom ma fekkee wax ma fekkee de àddina mbaay nga ni góor gi amoon data soirée waaw ma dem ba ca mom bi may bëri Tidiane fay dem na ba sanc sama naani ko mbay eh, keroog bi Papa Diop mbër di bëreeg mbay gi Tigre Fass sama nijaay ko yóbbu sa sañ tama naa ne ànd ak sama nijaay Caaka Mbaay ànd ak Baye Malick Ndiaye keroog ba ñuy dem foto mbay gi leen yóbbu ndeysaan luñ joteeg mbéy gi. ba di ko ba di ko yóbbu ci sa sañtu taba naa ni. waaw parce dañuy bëri euh, day bëri papa mbër lay bëreel. te sama turandoo ma ne papa Diop mbër. waaw la ngem yóbbu ko ba sañtu taba naa ne ànd ak góor gu ñuy wax Malick Ndiaye. keroog ban dayoo ba sañtu taba naa ne bàyyi Malick Ndiaye photo euh, photo mbéy gi la génne ñu ne ko kii mooy mbéy gi boobu mbéy gi yi maara day taale mbéy gi nga takku takku ba mel ni Modou Lo ndeysaan ñu ne kii kan la ñu ne sëriñ bi kii mooy mbéy gi waaye dalaa mais Mbaye Gueye est-ce que moo ko saaga. Mbaye Gueye saaga ko mais boobu dañoo bëggoon a xabtal sëriñ bi. Ah, dañoo bëgg fas yi gën a dëgër. dañoo bëgg na fas yi gën a dëgër dégg naa paa bi ñu tekk góor gi am ndara toile. moom a mu bokk ak ah, ah, Cheikh Aline Souare mi kenn daje. mais góor googu wàllu la woon moo jur ñoom Serif Souare jur ñoom Woka. góor googu Oka góor gi Oka. góor gi Oka moo. dégg naa lu mu fasul du ba maanaam bu la fasee doo rëcc. pël boobu mënoon ci Sénégal. ci fas ci fas. moo moo amandata nag ñoo laa ngi dëkk moom la paap Diop Boson jéeri kalaameeg Mbaye Guèye. waaw moom la Pape Diop Boson kon Mbaye bu ñu waxtaanee làmb jaadu kon turu monde mbaay bi foofu la jóge waaw turu monde mbaay bi foofu la jógee ndeysaan mu des nag te Sonacos daan ànd ak Pape Diop ko jàppale di ànd ak Mansour Diop di ko jàppale. kan moo def loolu. sama turandoo moo des sa Sonacos. ndeysaan waaw Sonacos la des ñu ko Alaaji Babacar Mbaye ñu ko monde mbaay. Sonacos la la la la génnee àdduna. waaw Sonacos la liggéey ba wàcc nag romb Sonacos nit ñi daw xam nga géwél daal lañ kumpa mu dem mbaay di xool yi ndax réew mi li fi nekk kenn du ko tegal foofu sa baaraam. mbaay yàlla gudd fan. mbaay nga ni sa turandoo ndeysaan damay faral di wax naan géwél bari wuti wax ay mbokkam la nuru. waaw mbaay nga ni sa turandoo ndeysaan seetaan yi. la xewoon ca Sonacos ca la demee ca la wujjee boromam. xam nga daa liggéey ba wàcc. waaw géwél mënta gis coow mënta gis riir. waaw ñu naan lu xew fee lu xew fee mu dem di xoole ndax Sonacos ñoo fa doon liggéey daanaka deewuñu ñu demoon di seetaan rek a dee. waaw lan moo xewoon Sonacos. gaz bu tàkk. muy seetaan yi muy seetaan yi moo tax seetaan wóorul ko la sama yaay lu tàkk kër gi damaa ko dugal ci biir dugg leen ci biir mais lii lan la ko laa du ma àtte xeex du ma seetaan yi. mbaa yow kay yow kay boo àttee xeex yow sa turandoo seetaan ko rek yow yow da ngay ñëw. yow da nga mbaaye nga di sa turandoo day de ca ca seetaani Sonacos ca la ca la demee. seetaani ñu naan bu leen dem bu leen dem moom mu ne mais lu xew fee quoi taal oto nag avancé. cëy lu xew fee. cëy lu xew fee moo tax keroog ba ma dajeeg jinne ji keroog nag ndeysaan. mbaaye ko dajeeg jinne. maa Kona Kona nag dox naa ba jommi maa man ak maam góor bu bul faale Kona mosoo dajeeg jinne Pikine man mi maay dox ginnaaw raay ba dajeeg jinne ji Kona mu ànd ak doomam loolu yaa ko doog a dégg Sela Bo TV Mawne am ngeen gan gan gu rëy tey. Mbaye yaa dajeeg jinne yow tamit en même temps. waaw waaw ca Pikine ca ginnaaw raay ñu jógee tànn beeru amul kana bàyyi ba. Mbaye kon de réew maa ngi lay déglu nga ni yow. combat amul seen su lay topp ñu jógee tànn beeru. ama seen daan su lay toom ñu jógee tànn biir man ak maam góor bul faale dox ginnaaw raay ci gaar bi gis jinne ji génne ci matt yi kola jinne ji nu mu sol ak nu mu mel kenn xamul nu mel kola loolu kenn mosu ko mais mbaaye yow yaa say bët ak bëtu jinne yi yow yow mbaaye yaa ne tegg sa bët ci jinne ji maa tegg samay bët ci jinne ji ak ak doom yi gisuñu maa ko gis maam góor bi ma àndal laa xam kola barke yonent yàlla Muhammad mbaaye léegi ba nga gisee jinne ji mbaaye keroog samay bët samay lëndëm na kola ma jàpp maam góor mu doon deux cent kilomètres ko diri <laughs> ah Oña Ndiaye nuyu naa la ndax doxagoo ba dajeeg jinne bay laa demal tëddi bay laa demal tëddi. mbokki àddina mbaayaa ngi nii. géwél bariwuti wax ay mbokkam la nduru te ku sàcc mbaamum law ba jaay koy géwél mbaam ma feeñ war nga ca séentu ceew donte ñaari fan la. doo àddina mbaay laa dajal waxtaan ak moom ci digg Cees fii ci Kajoor Galaas. mbaaye nga ni jinni ji nga dajeel maam ngóor ma nga àndaloon xëm di 200 kilos nga war koo diri ak sa jommi waay. bilaay walaay ak sama jommi waay. mbaaye guddi <laughs> guddi googu métti na ci yow mbaaye. guddi googu boo ñu gisoon ko naa da nga ndax maam ngóor ngi xëm naan barke Sëñ Fallu <laughs> te te te boobu maam ngóor toll na mat na 200 kilos. waaye moo tax guddi daal am na borom. reer tëdd mooy wàllu reer dox yi. barki moo tax sama ndey nee na reer tëdd dara gënu ko assuré. moo tax nag ma am fu ma la foogee mosuma laa noo ci mbeddi Dakar ngay taxawal. noo noo mbaayee man nu ma taxawaalu. boo yow da ngay reer tëdd mais bay laa rek dina jommi xanaa xamul ne ko bay laa fa la fa barki Seydina Mohamed. kañ bay laa moom bay laa moom bu dee jinne lay daje moom dina daje moom ndax day boot saagam bi wër rek mbaaye. ñu del si euh, mbokk internet yu c'est la ngi nii ku ñaari junni yoo may mayal ku la neex waaye ku bëgg dégg-dégg jàppal c'est le TV moo xew ci àddina Mbaye ci làmb bu may waxtaan ak yow ci ay anecdote man man ma Mbaye dinaa la laaj nag ci booy Niang ak seen Sène ak euh, Balla Gaye Boy Niang Balla Gaye combat boobu Mbaye dama la ciy laaj ndax danga ngaa bëri Balla Gaye ñaari yoon yar booy Niang. waaw waaw kon euh, boobu ñëwaguma foofu Mbaye dencal dañ koy tëjee. Oh, Mbaye dama naan la ana lees muuri cuun cuun yaa ñu sagal. waaw kenn du moom le grand champion. waaye jàkkaarloog caméra bi nga wax réew mi kuy Les Mory. waaw Les Mory ndeysaan daa xëy suba ni ma mën na ma ne ko naa mun ma déglu woy bi ma Daaro ma ne ko sëñ. Daaro Mbaye moo woy Les Mory. yaa ma sagal cuun. mu ne ma ah Mbaye ma ne ko. Ah, sëñ Mory cuun lan la woon moom mbër la woon. mbër la woon dëkk Thiès mit na Fall. nekk Pikine mbooloo. nekk Pikine moom ñan la générationnel. ñoom As Mbaye ba leen sikki ñoom Liiru Jaan ñoom Ngeylum xam nga ñoom Tomba seen nga ni lees moo di toog ci réew mi Ndakaaru ba mu yàgg. mënu ma damay ñibbi Thiès. ne la mbaaya nga ne ko naam mu ne la damay ñibbi Thiès. fekk lu xew. ma ne ko père foo foo jëm mun ma xanaa déggoo Daaro mbay micro mun ma xanaa déggoo Daaro mbay li ma way. ni mu ah Daaro Mbaye da koo way. daa jaawle lees jëkkëram ak moom. mu nee na moom la ñu ah, jëkkër ja la doon way. waaw fekk nag daa dóor tur ya daje. tur daje fekk jamono boobu daa dóor tombé seen mu daanu. dégg naa woy wana lees moori cuun yaa ñu dégg naa looloo musoon a neex. ca ña ko fekkee. mun ma demee ñibbi Thiès. lu tax muy ñibbi. ndax damaa bëri Ndakaaru ban tam ma di ma way. mais moom wayuñu ko. nee na moom la ñu way kooku mooy sëñ Modou Thioul muy euh, doy na doy na waaw ñëw Thiès. ma defoon day day day bi mu ñëwee lu ko Ndeye Dia wax. ndeysaan daa li ko jëlee Ndakaaru indi ko Thiès bi mu ñëwee lu ko Ndeye wax. waaw yaay ji dañ ko waay waay Thioul Thioul mënu ko naam mënu ko waay lu xew ba nga jógee Dakar ni teg say bagage mu ne ko yaay Ndakaaroo ma tam dama damaa dem Dakar ba digg daal ban wooy ma ñu ne la wooyee mu ne lees moori junne yaa ma sagal cuun waaw ndeysaan combat mag Sidi Keita nag keroog moo lees moori ku doon way way woowu Daaro Mbay Daaro Mbay koy jëkkër Daaro jëkkëram moo tudd Les Mori waaw xam nga lu tax léegi Les Mori di mbër dégg way wi foog ni moom lañ ko way fekk moom lañ ko way mu ne ñibbi jot na jot naa Ndakaaru bañ di ma way ba ban tam di ma way ñi dama leen a budd ñu dóor ci suuf ñi damaa kal ñu jaaxaan ñi bi ma leen ko taaba damaa mbokk nangu leen samay loxo ñibbi jot na waaw ah, nee ma sama combat ba bàcc njaay bi ma ko dóoree ma ne ah, mun ma bi ma ko koree nee na ci poqataan mi ne la ko. dégg sëñ Modou Thioune moo ko dóor. dóor kor ko muy xaran ci poqataanam. waaw mu ne aleen ma paaka gaaw ma faat ko ndax bàcc jaay ngi faatu ko koy les Thioune waaw. les moom ko wax mu ne faat na ko. ko wax mu ne faat na ko moo tax papa papa jom bëri di ko mais sëñ mais ñi nga faat seen bàmmeel fu nekk. <laughs> maam sëñ Modou Thioune bu bëri buy bëreeg yow bu la daanee du wax daan naa ko danaan faat naa ko waaw danaan faat naa ko moo tax ba sëñ jéeri nee na ko ñi nga daan ana seen i ana seen i bàmmeel mais nag combat bi gën a neex ci combat bi nag moo bàcc njaay ko bëri nag lees Modou Thioune bàcc njaay ak bàcc njaay waaw ndax keroog daa génn yéen a ngi ci làmb bi démb bi de ak tey ak taye kër bi muy génn rek yaa ji daa daw yuuxu ko ni ay eh, waay sëñ yàlla nga daan. ndeysaan sëñ Fallou mu ndaw kot ko doom ji ni ko ay papa yàlla nga daan sëñ daan bàcc njaay ñaari jël yaay ji ñëw waay ñun ñëpp waay ñu ñëw yuuxoo yi commencé sëñ ku daan ku daan ku daan mu ne yaay ñaari jël sa jël ak jël fàll mu ndaw kookoy sëñ Modou Diouf ah bi muy génn yaay ji daf koo ñaanal ndaw ñaanal ko mu daan mu daan ñaari jël ñaari jël ne ko yaay lii moo mën a demee ndax sa jël jël fàll mu ndaw kon kooku mooy sëñ Modou Diouf mbaru démb yi dañoo neexoon mbaayam mais da nga leen a kutuwaaye la may ma ci Mansour Diop ba son jéeri waaw Mansour Mansour mu ma jama Diop waaw mu papa Diop ba mu papa Diop ba son dëkk ca Jaksaan dëkk sa jag sa kooku mooy. kooku boo waxtaanee ak làmb ba pare te waxoo ci Mansour Diop da ngay daanu dem. kooku nag mooy champion bi nga xamante ni woon boo musaan bëgg gis ku rëy nit ku rëy da ngay dem géeju male bu seeti ko mooy Papa Balde Sénégal ñoo ci ëppoon. maanaam boo bëggoon gis ku rëy. ku rëy waaw ku rëy ñor la rek nga bëgg a gis ku rëy. waaw waaw ku rëy koo xamante ne. Mansour Diop ngay gis. waaw doomi Alaaji ma jëma Diop ji bi mbalang waaw déggoo ma de. maanaam bu la bu dee leeree ni yow kuréy nga bëgg a gis. kuréy daal nga bëgg a gis. Papa Balde ngay wëri. ak Mansour Diop ndax seen xeeti yaram. Papa Balde moo bëre woon ak Max Mbargane. waaw moo bëre woon ak Max Mbargane. loolu nu mu waaye tamit daa la ne te Zil Balde ak Birane Koumba fi la ma fekk. non mais Papa Balde ak Max Mbargane. non euh, nu làmb ja demee. non jooju nag moom seetaanu ma ko nag mais dama lay xamal ni la. voilà foofu daal laa mën a yem ndax Pape Maximane maa ngi koy nuyu waaw ndax moom sunu papa la sunu xarit la. ñoo ngi nuyu Ounia Ndiaye. <laughs> waaw Ndiaye. waaw di wax ne diggante ba Xaadim Ndiaye ak Ounia tamit loolu foog ñu leer ko. Ounia Ndiaye si Erika Thiam ñu ngi lay nuyu. Mbaye nga ni ma combat euh, li ngay doon Modou Mbaye Modou Mbaye combat Max Mbargane Papa de jotoo koo xool. waaw waaw mais nag fekk naa fu yéeri jaxate ñëwee ni Mansour Diop sa combat laay bu ko taxawal. ah loolu ay wax nga ca biir. Max naan ko defal ndàgg. ba ci bàmmeelam ba ci bàmmeelam day mboot bul jël yi xamul li muy def bàyyil maanaam bi ñuy dox combat Moustapha Gueye le tigre de Fass ak Mansour Diop ak Mansour Diop Max Mbargane ne ko loo ciy def na wóor ndax ba ci bëtu bàmmeelam day ba ci kuusu bàmmeelam Tafa Gueye day mboot xam nga ñoom dañoo nekkoon groupe mais Max moo ci ëppoon xel parce que la wax di nga ko gis dégg naa ba léegi nag ba léegi ba làmb kenn gënu koo mën Max Mbargane ci àddina parce que nag ni nga ko gis noonu xel mi daa rëy may loolu lay def ba pare da ci jëlee ndam Tafa nag dégg naa moo dàqoon a mboot njaboot waaw Tafa Gueye moo dàqoon a mboot njaboot may nag daa bëri Max fii kees sama koñ ngent waaw ni ni ku mën ci làmb dugal ma daal la boobu boobu Pera As Mbaye mënoon kees. As Mbaye waaw mooy papa ñoom Badou Mbaye ak Ousmane Mbaye ak Fallou Mbaye. Mhm. waaw boobu mënoon kees nag. As ko waaw kooku nag mooy As Mbaye. ku mën kees na ma daal la Tafa Gueye moo ñëw Thiès solo ensemble très. waaye yow ànd ak petit jëkkër Fatick yi mais mais yow démb ànd ak petit laa jëkk waaye dama ni maa fekk bakkan lay laaj. kee nag mooy Idi moo takk jabar doomu booy Niang. Ah, goro booy Niang la. Goro gisoo ko fi ni position bi mu jël. kan la takk la takk. Ah. ma takk doomu Boy Niang bu mag. ah Boy Niang mu mag ma jekk kaala. jekk kaala. goro ma ngi nii taxaw. goro ma ngi nii taxaw. jërëjëf waaw kooku mooy Idi. mooy Idi. Idi noonu ñu ngi lay. général mii day. <laughs> général waaw waaw. Hmm? dékk ma sa micro rek ñuy waxtaan mbaaya. Euh, si euh, sëñ Modou Thioune am na làmb ñu mu woon ci diggante armeer yi. ak hôpital bi. waaw loolu mbuur la ko lo jàkkaarloo réew mi nga wax waaw loolu mbuur la ko ndax bi ko Bombardier wooyee daal ko invité ni ko sëñ nga ne làmb ji nu mu demee. moo doon wax Bombardier day rey. waaw Bombardier day rey. ndax bi may ñëw fii mënu ko naam mënu ba sonn man su ma ne yow damay faat Bombardier ni koy déet bul ma reyloo mënu ko noo del faat. Serigne Modou Thioune. waaw. làmb ji mu bëri ci diggante hôpital beeg armère yi moo doon làmb ndox ko àddina. waaw loolu mbuur la ko bëri nag nee hôpital mhm. mun la nga ñu ñu ne la ñu fii ci hôpital bi. jullee la ci armée jullee la ci jàjjàgg mais bi ñuy mbaal bi ñu koy mbaal nag. waaw bi euh, la àndal nag ndeysaan foofu lañ ko mbaalee bëre ban mbaal. Cheikh Niang doomu doomu doomu Boy Niang. daa xëy suba ni ma dootuma ànd ak Cheikh ma ne ko lu xew munuma damaa bëre ji ànd ak Cheikh Niang dem Fass Boy ma ne ko waaw munuma dañ maa sànni mbaal ma ne ko sànni mbaal mun ma faas booy dañuy mbaalaate man ko waa sëñ bi xew ban mbaal la mun ma Sidi Keita daal laa yenn ba taxaw nee na waa dëkk ba sànni may waaye seex ni ma kenn mbaal kenn mbaalu ko dakaa yenn du ko cëppeel mu gàll ko mbootu deuxième pied mu ne Cheikh ma Cheikh Niang dootuma ànd ak moom mais sax mu daanu du ñàkk lay. non mbër mu daanu Sidi yi mu ne dañ koo mbaal corde yi dagg mu xëy dañ rek ma dan maa mbaal xool sama tànk yi. xool tànk yi loxo yi fépp lañ baal. kon Mbaye. waaw. su ma la nee Boy Niang ak Balla Gaye loo may wax. waaw booy Niang da ngaa bëreeg Balla ñaari yoon ci làmb. wax waxal àddina sa digganteeg Balla Gaye. waaw su ma digganteeg Balla Gaye nag dafa ñëw Thiès ànd ak école de Balla Gaye bépp ñëw fii Thiès Medina Fall. bàyyi lool ay loolu ay deux mille euh, deux mille cinq deux mille six rek. waaw boobu boobu Balla Gaye bëri na premier combat. boobu la leen Balla Gaye nduur di léegi nag ñoom dañoo àndoon ak benn booy bu ñuy wax Fallou Diop euh, Fallou Seck mu ñëw indi leen kees ñu bëgg igri man ma jógee Dakar boobu man. boo boobu tey maa ngi Pikine mbooloo. Ah. boobu tey maa ngi Pikine mbooloo xam nga. nekk fa tamit naqaree daal lool. ñëw fekk waaw ñoo ñëw fekk leen fii ñu naan Balla Gaye Balla Gaye Balla Gaye Balla Gaye mu daan ñu fi nekkoon yëpp waaw daan sama gaay yi ci bappat mi daan ñoom saa fekk ñoom ñëpp ah. mi ah ca non ci bappat mi nag. mais nag man bi may bëri moom moom xaw ma man dama dégg doomu dubalees bi rek mu ngi mu ngi mu ngi toj làmb ma ñëw. ñun ñaar ñu jaxasoo ndax man man maa njëkk a génne secret Balla Gaye parce que Balla Gaye booy bëri moom doo ko may temps da nga waaw mbër mu ko profité di nga ko daal mais boo ko bàyyee muy xalaat bu jàppee day bëre. léegi ñaari yoon ngeen bëre. waaw parce que ñaari yoon lañ bëre waaw ñaari bi ma daan ko Thiès benn bi nag ñu bëre Mbapatou Max 40 minutes ñoom daan. Mbapatou Max jàpp euh, te mooy ma tabatu xamante ni Baye Mandione la ko daan yàq. dégg naa Baye Mandione daan na fa yàq laaw. Baye Mandione yàq na fa téeméeri combat sama kanam. mais boobu lañ ko plainte. dégg rek jour dégg waaw. Euh, nee na ku yàq làmb ji euh, entre vingt trois <laughs> dëgg làmbam nga yàq làmbam nga nga yàq. léegi nag làmb jooju cër ci la max ndeysaan bi bàyyi ma ñoon yàqee làmb yi ba ba xamutul lu max def mu xëy suba daal di plainte bàyyi ma ñoon ndax am jàmm. kan moo plainte bàyyi ma ñoon. mi yow yóbbu na bàyyi ma ñoon ci yoon ñëw ñëw ñu jox ko bàyyi ñoon ko mu naan ko jag saaw nan ko jeg saaw la plainte jeg saaw gépp mbaaya xaaral mbaaya lal la Max Mbargane joté ak um, um, Baye ndion lay ba diko ba diko ko plainte xam nga Baye ndion mbeur la won bo xamanteni bo boo sa beut du suufa ngi ci rek mu xex mu xex ak ndeysaan dafa am fit nak no jambar la fit wee mësa rëy man xala xaw man ndion ndion da tuj aduna man ndion la bëgg sama aduna xala xama lolu ndion xol Baye ndion bokku na ci mbeur yi ma gëna bëgg ndion bo la ndax du tricher non ndion na dawul bëri ci mbafat mom ma mbabar boobu mu no Issa Pouye fa daan bëre Xaadim Njaay numéro léegi nga ni Max Mbargaan pelante Njoon Njoon waaw xanaa ku ko pelante di dina am tu te li ma métti ci pelante bi mooy Max ak Njoon ay ànd léegi Max pelante Njoon parce que daa sonn nag wax dëgg ko mais euh, ma Njoon ni ko mais Max koy pelante dañ maa jox ko mën na ko jag saa wala pelante a awoon ngépp ñu ànd ci pelante la lii la max def ak Baye Mandione. waaw max boobu peut être Baye Mandione. ba pare di ko jag saaw ba pare di ko jag saaw. tableau Tivaouane post Thiaroye ñoo manko pelente la pour ma am jàmm. dootoo <laughs> la làmb jàmm ngay jàmm. kon Baye. Ah? non max kenn du moom léegi nag Balla Gaye dégg. ñaar yoon ngeen bëre. waaw ndeysaan mu nekk mbër moo. nga daan ko benn yoon. waaw après beneen yoon bi. bi ma bi ma ko daane mu xëy suba ñëw min na fal. benn sëriñ bu ñuy wax Baye Birame Diop yàlla na ko yàlla yërëm ma ñëw mun ma yaa doon bëre doomu Double Less ma ne ko waaw parce que nitu yàlla am na quoi maa ngi nuyu waa Kawsara Fall. Baye Ibrahima yàlla sa lumière baax na. Baye Ibrahima Diop yàlla na ko yàlla xare àjjana munuma yaa doon bëreeg doomu Double Less ma ne ko waaw munuma xale bi fi ñëw démb ma ne ko waaw munuma kooku mbagum càmmuñ mi li ci nekk ci coow attanu ko boobu Balla Gaye bëreegul sax arène ne xale bi fi ñëw biig ci guddi Fallou Seck ko fi indi ma ne ko waaw mbagg mbaggum càmmuñ mi li ci nekk ci coow attanu ko waaye Boy Naar Fall ne làmb du ak maas dabante la làmb heure boo ci yàggee rek ku la mën fekk la ci. maanaam moo la njëkk a wax ni Balla Gaye mii nga daan démb day doon champion. waaw ah, moo ne mu ni ma xale mu ne la bi li ci ne ci coow xale bi attanu ko. déedéet waaw ah, loolu moom sëriñ xam nga ni xam-xam am na. mbaaya mais Baye Ibrahima Diop a ngi noonu mooy sëriñ ñoom saafi nag am ñoom saafi ci lañ jébbalu mu nekk nitu yàlla bu garaaw di. moo la waxoon li ci Balla Gaye moo waxoon lii ci Balla Gaye. c'est lu ma neex ci yow yow booy wax da ngay duut baaraam. da nga naan maa fekkee Mbaye xanaa xamoo yow laay wër man bi Alaaji Baara toogee da ma sëñ Muntaxa kenn du ko teree doon xalifa ndax dundam ci loxoom. Euh, Alaaji Baara la wax ah, la Alaaji ma ne la sëñ Muntaxa day doon tari xalifa. mu ne ma sëñ Muntaxa kenn mënu kaa doon tey doon xalifa ak Sëriñ Tuubaa ma ne ko lu tax mu ne ma ak dundam moom la téye ci loxoom du gone. waaw ci moom laa njëkk a déggee mu ne ma sëñ Muntaxa day doon xalifa. ndeysaan ni ma nag Balla Gaye xale bi fi ñëw bi ci guddi da ngeen bëri ma ne ko ah, mu ne ma li mu àndal xajul ci moom. ndeysaan mbaaye kon suñu nee làmb di dox du maas dabante la waaw loolu la ma loolu la mag ñi wax. ñu dem ba Balla Gaye 2 ñu tegu ko moom ak booy Niang. waaw Boy Niang nag. làmb jooju yow lan nga maanaam maanaam mbaaya arbitre sifflé na. Balla gay booy ñaa fausse garde garde normale arbitre sifflé na. waaw mais bu na Balla Gaye def ndànk. parce que bu euh, boo attaqué sans contrôler di nga jël arrêt bu métti loolu ko dal ci combat ma Gris Bordeaux te Boy Niang xale la boo xamante ne nii. te Boy Niang dafa am arrêt bu garaaw ku weddi laajal Sa mais Sa Thiès koy lëng lépp mu naaj. dafa am arrêt lu mu ko sërëxal doon na ko parcelle lu mu gaaw gaaw la arrêt. lu mu tàllal la arrêt parce que da ko jàng. Boy Niang moom loo ko mën a a waxal mooy lu xeex bi métti métti métti boo nee bëxër ñett. da jël arrêt moom. dina la freiner dina la dóor arrêt kon yow ragal nga Balla Gaye ni muy jëlee arrêt Gris Bordeaux ak crosse droite bu ba Bombardier bu jëlee arrêt Boy Niang yaakaaroo mu yàq làmba. waaw dina Balla Gaye dafa xaw a kanam gi man dafa xaw a nekk sac de ndax ragalul. waaw waaw ragalul te Boy Niang arrêt boobu li mu mën a def ci làmb daa bari. ndax boo ko jëlee balaa ngay xëmmaliku. mu daal la jàpp. daal daal àgg foo xamante ni. mbaa waxal ak réew mi. waaw dama ne Boy Niang bu la dóoree arrêt de gauche bi mu lay dóor bala ngaa ximali ko dina la àgg foo xamante ni boo deful ndànk ci suuf nga jëm. te fii la Gris Bordeaux fii Gris Bordeaux di àgg Balla muy rëcc. Boy Niang bu la àggee foofu ah heure bu Balla Gaye raamee wala ñu dóor ko faqat ko mu si ba booy ñaar dina ko wër loolu leer naa la wax. mbaaye kon yow làmb ji da nga gis ni atu yi bu fekkee ni Balla Gaye teeyul atu yi ci boo ñaar la. Balla Gaye su ma doon moom conseil laay bëri si ak xel ndax xale laay bëreel bu am kattan. léegi waxal Balla Gaye lan lay bëree. waaw Balla Gaye comme nee nga warta warta jël arab bi léegi lan la war a li mu war a def rek mooy ni teg bañ a attaqué parce que boo attaqué gaañu. attaqué day gaañu de. mais mais bu attaqué wul ba du ñu match nul parce que boo Niang gis nañ ni il est un peu contre attaque lay ëpp lu muy def que il n'est maanaam dafay xaar dafay maanaam contre attaque lay bëree. waaw contre attaque lay mais li mu bëri saa kees loolu loolu lay bëree si Balla mais Balla Gaye mënul xaar yow ah, Mbaye. waaw ñoom yaa dañuy daje. bu ñu dajee kuy ëpp avantage nga yaakaar. waaw bu ñu dajee nag moom li ma lay wax mooy li ma gis Balla Gaye yor ko fan yi bu ko defaraatul bu dajeeg booy Niang li ah ba Boy Niang moo avantage parce que ñaari yaram yi bokkuñu. Boy Niang ma Mbaye yaakaaruma ni da ngaa faral Pikine. non man Pikine laa Thiès laa juddoo yaroo Pikine mooy tamit Balla Gaye 2 day ndaanaan loo xamante ni kenn lam laamewut waaye booy ñaa day mbër mi nga xamante ni fi ne nii xam na li mu gis dafa am lu mu gis contre Gris Bordeaux te loolu ko teree nelaw fi ne nii loolu moom moom bu doon moom danaan man fii laay àgg ak Balla Gaye te fii fii la may yem saa kees lamb Sénégal kenn kenn kenn ëpp ko ci doole mais ku ko ci munta agressé doo ko daan te boo ñaa da ko agressé saa kees bu ànd ak sagom doo ko daan parce que newul doole te mbër la mais boo da ko assomé assomé bu metti loolu moo jàllekaloo saa kes quoi parce que dafa jël coup yoo xamante ni yaakaarul woon ni dina ko jël. léegi yow état de forme bi Balla Gaye indil Gris Bordeaux yaakaar nga ni bu ko indilee Boy Niang dina ci génn. waaw non bu ko indilee Boy du ci génn. kon lan lan nga gis lan la war a yokk. état ba baaxul. ah non état ba laaj na liggéey lu bari. kon li ma li li Mansour boo xoon saafi lii état bi. ah non non jéggi tibb nañ ci lu bari. nee na saaf ee eh, kii kan la ee eh, dama dee. kii kan bada génnal. jéeg ji tibb nañ ci moom lu bari kii état am bi jéeg ji tibb nañ ci lu bari. kon état Balla bi jéeg ji dañ cee sàkk. waaw noo du du du question jéeg jéeg ci sàkk sax mais Balla problème am mooy li mu indi contre mu Lo loolu la war a indi contre. waaw mais état bu jéeg ji sàkk est-ce que di est-ce que dina euh, Boy Niang tamit état état am bi jéeg jàng ciy sàkk de wala. non non wala xale la. non xale la. jéeg ji sàkkuñu ci. non non jéeg ji sàkkuñu ci. mbaa est-ce que faraloo Boy Niang mbaa. non man xamna naa Boy Niang parce que Boy Niang li dëkk Pikine lepp di dox di wër musuma ka gis do dajé ak mom musuma dajé moom dégg mo gëna rar mo gëna rar 100 dollars dama ne do ko gis. mbay 100 dollars du laat biti. Boy Niang daal da bako bëgg gis 4h du matin 5h mu and ak Baba da dem géej heure bobu nga ko gis. Baba wad mo lay abdominal ba ngay waccu ay eh, Baba Wade Baba wad Baba wad daf ñu daan dawloo ñun ba nga. Baba wad mën na ray nit. Baba wad mën nga dé sax. kon baye kon suñu xoolee ba xool analyse yi nga teg ci làmb ji. li ma teg daal mooy. Balla Gaye il faut mu defaraat état bi. defaraat état bi. endurance lay def wala musculation. wala lan lay indi non lu bari. day endurance li ma liggéeyoon contre Modou loolu lay liggéey endurance parce que Balla boo amee doole day manifesté wu waaw day da lay def noo xamante ni doo xam noonu lay bëree waaw. Balla Balla Gaye moom bu amee doole baat ak tontu lay yow. léegi boo Niang moom ban état de forme la woo bi mu daan indi wala. non non Boy Niang yaakaaroo bi mu indil tafaatin mu defaraat ci dara. non boobu baaxul parce que boobu daa fekk mu feebar. li ci nekk kenn du ko wax mu dem France am benn feebar bu ko dal mu xaw a jaaxle sax ci combat bi mais après nag mu bëree combat négocié ndax bëree na ba ba pare kenn daanu ko moom dafa bëree combat bi négocié ko kenn daanu ko parce que dafa gaañu woon man nag am naa ci lu ma leer waaye combat bi moom ah dina indi lu teeng di ngeen mën a mbaay ma ko wax. kon mbaaya lem neex na mais kenn du ko diwoo. non te mbaaya ku naan butéel bi jaaxaan. ku naan butéel bi jaaxaan ku naan. waaye Mansour Diop sama baay ba nee na soo dofee ba diwoo ko nag weññi dina la topp waaye heure boo melastikoo mu neex. mbaaya te yaakaar naa xanaa ñun manqué wuñ bay diwoo lem bi ndax melastiku dong bu dee lool la moom duñ tax a diwoo diwoo lem donc mbaaya nuyul euh, euh, tàggul waar réew mi. waaw fekkee am na loo xamante ne bëggoon nga ko wax te laaju ma la ko. mais waa Birame Souleye Mbaaya. waaw Mbaaya tey damaa ñëw Thiès. Euh, Fatima Zahral sama jigéen boobu di patriote bu mag invité ma fi. Mm. comme ñun mbokkum réew mi lañu ñu fu ne la nuy woo. maak C'est TV. ma ñëw fa Biram Souley fekk ma ci jotaay bi nekk njiit boo xam ne dafa oyof. moo ma xàmmee moo ma xàmmaliku. muy seen meeru dëkk. maam ci fierté. kon looy wax ci Birame Souleye en tant que maire en tant que taxawaay bi mu am fii. waaw Birame Souleye euh, ñoo ngi koy sant bu baax di ko di ko gërëm noonu mu noonu mu mel ci yow noonu la mel ci man noonu mu la xamee ko ndax Birame Souleye fenn rek laa ko jàppee wallahi azim mooy maire boo xamante ne heure boo yëkk yëkkatee sa téléphone ni kar allo maire mu ne allo te sa tur lay jaar avant nawet bi daa ñëw sama koñ xool constaté ndox mi yëpp ñëw ma woon ko photo ak vidéo yi mu ne ok fii nag ñoo ngi dina leen wutal moto pompe buy ngacc seen ndox mi mais liñ bëgg mooy balaa déwén ñu ne waaw mu dina dinañ fi def ay canalisation wallaay ndeysaan mu dem mayu fa ceeb. maye fa diwliñ mayewu fa ceeb mayewu fa diwliñ non non kon kooku naxul réew mi naxul réew mi dafa ñëw dindi ndox mi ne leen nag lii canalisation moo koy réglé canalisation moo koy réglé te bu déwénee incha def la koo xamante ne nii xoolal porte à porte lay def ci mbedd bi lay toog di waxtaan ak nit ñi non man tey xam naa si dara Birame Souleye moo ma gis xàmmee ma xàmmaliku ma jël sama numéro téléphone man Konaata du ma dara ci réew mi mais Konaata ne ma maa ngi lay bëggee dama lay kontaane sensibiliser ma li ma neex daal jotaay bi naru ma woon wax mu ne nañ leen wax mais Birame Souleye daal li ma neex li ma neex ci moom mooy du wax lu mu mënut du wax lu mu mënut te nit da ngay wax li nga mën mais moom du wax lu mu mënut. lépp lu la wax da koy def mën na ko. lépp lu mu la wax da koy def dul def du la ko wax. lu mu dul def du la ko wax. ah kon Mbaye réew mi loolu loolu mooy njiit Mbaye kon Mbaye yéen waa cees ah, Thiès lan la cees ouest. déedéet Thiès ouest fan. Thiès nord. kon yéen waa cees am ngeen am ngeen leader. am ngeen maire na ngeen ko jàppale. non. ndax pour man. mais jàppale kay mënut a passé nga nekk nekk député. waaw mais Kibir yow de moom ku bëgg a defar Thiès. non su àndee ak yow. Thiès day defar Thiès defaru. ndax Thiès bu dee kopp fonde la da nga koo tëru naan. non dama koo naan mbaaya. mais nag damay euh, damay nuyu sama patron muy Habib Kane nga xamante ni ci moom laay xëy. maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar Habib Kane. waaw di nuyu tamit euh, Mouhamed Ndiaye. nuyul ñëpp ñu nga bëgg a nuyu waaw nuyu Omar Baw Junior. waa kon ah, maa ngi nuyu Omar Baw Junior borom ñetti grand prix chef de l'État yi. Omar kenn moom. Omar Bawo Junior menn ma. Omar Bawo Junior sooke bu mag ba waaw. mooy tey Omar Bawo Junior mooy promo. <laughs> ey booy Omar Bawo moom du sooke. déedéet du sooke. mais daa i fas. moom mooy. man daan naa dégg ñu reporté naan Omar Sarr Bawo Junior a ngeen noonu di di di tournaal ba. waaw nag moom moom moom fas yi mooy borom Omar Bawo Junior fóon na. taatu ilima euh, euh, euh, kii wa mbay péex amoon na fas bu doon daw Elisabeth Diouf la tuddoon mu naan Omar Bawa Junior loxo ma ma ngay fóon taatu ay waay looloo mën a ñàkk kon nag mbaaya bu dee bu dee ñi ngay sant jeex nañu tëj émission bi maa ngi sant Omar baax bu baax di ko nuyu di ko gër gërëm mhm. xam nga di ko wax ne moom doomi mun Muntaxa la ndax doomi deret daa am waaye doomi xol dafa am moom doomi xolu sëñ Muntaxa Mbàkke la ñoo ngi koy ñaanal ci koo xamante ne nii def social la ko tax a jóg ak def lu baax kon ñoo ngi nuyu PDG borom Ikirel Amba Faar borom Aminou Ouma ah borom expert comptable borom El Capo. Ah, waaw ñoo ngi koy ñaanal bu baax di ñaanal mbokkam yëpp rawatina daam Dambaaw Matar xam nga bàyyiwul kenn. ñoo ngi nuy ñëpp di gërëm ñëpp fekk nga fiy liggéey fii nag xam nga li nga wax rek ku ñaari junni mayal ku la neex mais ñoo moom suñu bopp bu ne dañoo toog suñu kër bañ a def dara mais dañuy dem di dóori suñuy waar xam nga ñëw nekk ci fulla ak fayda ci fulla mais yow tey jii man tey jii ku naa fi ngay indi sa bopp mooy liggéey moo la ko yóbbu dëgg la jël uña njaay yob apex di liggéey di ñak di tedd deug la mbaaya ku yor sa ñaaru jund mayel ku la neex waaw waaw way bu bëgg a deug jappal jàppal Bon TV eh, kon mbaaya asalaamaaleykum wa rahmatullah jaw ku la euh, ku baax na nga def ma ngi tay ba dara jotu la moo do gala ba yang ci jamm dama tay no tuddu bigili bigili waaw mais bigili yow da nga graw de waaw mais yow sécurité nga wala waaw ma ni ci di euh, pa ñun ñëpp ak tonton ñep fi ngay liggéeyee. waaw Kajoor Galaas. waaw ci Thiès. maa ngi maa ngi kii Codé Galaas. la nga ni. Codé Galaas. ma to tojal li muy wax euh, ma ne euh, nga ni loo wax. man. waaw nañu liggéey si. fii ngay am. sécurité. waaw. yaay chef sécurité bi. waaw moom ma DG. yow yaay DG bi. moom suñu yéexee ñu kër sa sa sa gaa takk si dir takk beere. est que xam nga ni man dama laa bëgg. yow yow moom ma bëgg tey. waaw parce que sa tenue bi sa à dire damaa bëgg nga jëlal ma ko. yow euh, da nga maanaam sécurité bi ngay liggéey danga jekk ci tenue yow. moom tenue tenue neex na. tenue moo la neex. waaw man euh, ma kii ma passeur foofu ñu yéeyee man passeur pour passeur. maa ngi ñaar ñaar ma ci ci këru classe. ban armée nga armée nga nekkoon. ah ñaar Bango xanaa. Bango Bango Jar. waaw Saint-Louis. waaw Saint-Louis. mooy yow Batin yow. maanaam Paul Pascal. Cameroun la. Mame Sarr nga waaw. ñoo ma jabar laa. mais yow est-ce que man dama laa bëgg. nga bëgg tey. dama laa bëgg bi waaw. ci man waay Thiès waaye. man ñooy xam ne ñu jafe ñu ñuy xëy si. da ngay liggéey. ñii ñu ngi yooyee. ñu ñu jàkk. sëñ boo xamoon njaboot gi mu am. man ay jàmbaar. man ñu xëy si. man surtout ñëpp. yaay seen chef. ñooñu ñëpp a chef yi. moom teg garaaj. yaay garaaj yaay yor seefu monde mbaay yaay seefu fii ci liggéey. waaw ñii ñii jaay jaay ay garaaj ki nga xam ne am ci euh, rigueur bi ñëpp. jërëjëf ñooñu foofu la ñuy. jërëjëf yàlla njaboot jërëjëf. caka njaay ak atumaan ma njaay ngoone tënga géej abu dem ma bàyyi maar ma ñu jom jabax ko fandeen maa ngi jooy ongo ñaag mu umi njaay mu ñu lippee mu la kere